ñaareelu xaaj bi ci ñaari xaaj yi ci ëllëg sa ñu yóbbu piyeer ak yowaana ci kanamu njiiti yawut yi anaas ak kayif ca njiit yi lañu woon ñu laaj piyeer ak yowaana ci gan kàttan lañu faje waa ji noonu xel mu sell mi solu piyeer mu tontu leen mu ne leen ngëm ci turu yesu kirist mu ñu daaj ci bant moo faj waa ji mu ne leen yàlla yëkkati na yeesu ci ñi dee te kàttanu yéesu moo faj waa ji Pierre ne leen yeesu moomu mooy doj wi ngeen xeeboon yéen tabaxkat yi te moo doon doju koñ te mucc amul ci keneen ndaxte ci asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wu ñu war a mucce jëf ya saar ñeent aya fukk ak benn aya fukk ak ñaar njiit yi waaru ci sañ-sañ bi Pierre ak Yowaana amoon te fekk jànguñu woon waa ji ñu fajoon mu ngi taxawoon ci wetu Pierre ak Yowaana njiit yawut yi mënuñu woon weddi ne waa ji xebaar bi tas ci biir réew mi noonu ñu tere Pierre ak Yowaana ñuy wax ak di jàngale ci turu yéesu waaye Pierre ak Yowaana tontu leen ne bu fekkee ne déggal leen te bàyyi yàlla moo jub ci kanamu yàlla seet leen ko waaye nun mënuñoo bañ a wax li ñu gis te dégg ko jëf ya saar ñeent aaya fukk ak juróom-ñeent ak aaya ñaar fukk noonu njiiti yawut yi tëkku leen bàyyi leen ñu dem ñemewuñu leen woon def dara ndax nit ñi ñu ngi doon màggal yàlla ndax kéemaan gi am gannaaw bi ñu leen bàyyee Piyeer ak Yowaana dellu ci yeneen taalibe ya ñu nettali leen li xew taalibe yi bég te màggal yàlla noonu ñu ñaan yàlla mu may leen sañ-sañ ak kàttanu faj ak di def ay kéemaan ci turu yéesu bi ñu ñaanee ba noppi bërëb bi ñu nekkoon daldi yëngu xel mu sell mi solu ñuy wax ak sañ yàlla barkal leen lépp li ñu am ñu bokk ko ñu wéy ci di seedeel yéesu ak sañ bu rëy léegi ma laaj leen juróom kan la Pierre wax ne moo mën a musal bakkarkat yi Pierre nee na Yeesu rek moo mën a musal bakkarkat yi amul weneen yoonu mucc juróom benn ci seen xalaat ndax am na weneen yoonu mucc ak lu tax déedéet jëf yu baax taxul kenn mucc topp kilifa ak diine taxul kenn mucc nit ñi mën nañu gëm jenn yàlla ji am waaye du tax ñu xam yoon wi jëm ci moom yéesu rek moo ñu mën a musal juróom ñaar lan la Pierre wax ne yàlla def na ko yéesu mi njiitu yawut yi weddi woon. yàlla jox na Yeesu kilifteef ci kaw asamaan ak ci kaw suuf. yéesu rek moom mën a musal bàkkaarkat yi ci àddina sépp juróom lan la ak yowaana tontu njiiti yawut yi bi ñu leen teree ñu seedeel yeesu dañu ne déggal yàlla moo gën déggal nit kon war nañu wéy di wax ci mbirum yéesu juróom bi ñu bayee Pierre ak Yowaana fan lañu dem. dañu dem ca mbooloom taalibe ya. fukk lan la mboolooma def. dañoo ñaan yàlla mu may leen sañ-sañ ak kàttan fukk ak benn ci seen xalaat kan lañu war a wax sunuy naqar ak sunuy mbégte ak sunuy liggéey yu jëm ci yàlla war nañu ko wax sunuy mbokki taalibe yéesu noonu dinañu ñaan yàlla mu dimbali ñu te xalal ñu taalibe yeesu yi itam war nañuy ñaanal ñiy déglu xabaar bu baax bi ñaanal leen xel mu sell mi won leen dëgg gi te may leen fit bu ñu gëmee fii la nettali bi yem